yoo xam ne dégg naa ci ay amende xaw ma cent nangam milliards. je suis mu nekk loo xam ne daal métti na métti boo xam ne sama réew dama ci am lu ma ci naqari lool mais aussi dama am lu ma naqari tam sama. ci la force sans la justice est tyrannique.

il a mélangé tout ba pare mu ngi lox bi muy bi muy joxe kii mu ngi lox xam na ne li mu wax du dëgg xam na li mu wax manul nekk waaw parce que fii ku fi mos a ñëw ci at dinga nga xam ne di nga xam ne mais da nga xam ne Karim Wade il n'est rien d'autre mais fu na nga defal ko fa lu ne dëgg naa benn affaire bu nga xam ne sax société boobu sax taxawul xam na société xam na benn taxawu ci benn doxu ci ah mais nit boo ko bëggee boo ko bëggee karayel bëgg ko tëj bëgg ko andi problème ah mais un décision bi ak société yi nga xamante ni jàpp na ni Karim Wade moo ko. non non non loolu yëpp duma ci wax vraiment tëj nañ ko ay adversaire politique ñoo ko tëj. jeex na amul leneen luñ ci wax xamat xamatuma ko sax. sa surprise vous savez le verdict était déjà préparé avant qui ont donné toute leur vie à ce pays pour, la, pour le droit, pour la démocratie. tey jii euh, procès Karim Wade bi nga ko. waaw bien sûr. bon honte mais tout était prévisible sept ans lañ ko bëggoon tëj secret bi feeñ na ñu ci bennaat mais malheureusement pour le Sénégal euh, nous avons tous assisté à une justice politique une justice de honte une justice qui dé qui qui décrédibilise justice sénégalaise bi nga xam dañ ko mas a respecté oh, écoutez tout moins efficace. pour faire sortir Karim Wade, c'est tout. Karim Wade est détenu par les moyens politiques détenus par Macky Sall. Il faut que le peuple aussi réagisse par rapport, euh, euh, par rapport, à ces moyens. ñëpp jàpp ngeen ne yéen ñi ngeen xam ne yéen a doon xëy bis bu nekk tribunal bi wana guñ leen lenn loo xam ne lii ci 700 milliards yi ñu leen diggoon moom la gis ñu leen ci benn këyit bi ci mujj am expert comptable bi nee na moom amul benn preuve ci li muy wax moonte boon mi jàpp ñu jàpp ne xeex bi xeexu ndumbelaan la. que c'est un verdict qui a été dicté un verdict politique et ce verdict politique nécessite une réponse politique. nous avons vu un président euh, euh, le secrétaire général national maître Abdoulaye Wade très serein très calme et vraiment euh, nous nous nous en félicitons et maintenant il est convoqué un comité directeur et d'autres réunions se feront pour pouvoir donner une suite à ce à,